ثم جناني حول رسولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين سيد الوجود mbokku jullit yi mbokku taalib yi mbokku dëkkandoo yi mbokku Tayba mbokku Fuuta ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci aljuma ju tedd ju màgg ji nga xam ne maanaam ci ziara Tafsir Moustapha bi la bokk muy bés boo xam ne bés bu màgg la ci nun muy bés bu màgg ci képp koo xam ne ab jullit nga e, di leen bëggee bu baax a baax a baax a baax ndax sant yàlla rek di dellu it di sant yàlla mi nga xam ne mooy dogal di ko sant ci ay dogalam Eh, dogal yi mooy Tafsir Moustapha kenn la woon yàlla def ko muy njiit ci Fuuta rawatina goxu Tayba Ngéyeen mu nekk kilifa ci biir kilifa yi di góoru yàlla ci biir góoru yàlla yi eh, di ko sant yàlla ngir li nga xam ne yàlla jagleel nañu ñu am ku mel ni Tafsir Moustapha Tafsir Moustapha nag góor la goo xam ne yàlla dafa dogal mu jógee ci maanaam Fuuta dëkk bu ñuy wax seedo sebbe fala ay maam maamaatam ak i baayam cosaanoo yàlla def muy koo xam ne dafa fekk xam-xam moom Tafsir Moustapha dafa fekk xam-xam ndax ay maamam aki najaayam yëpp ay kàngam lañ e, yàlla nag def ci moom nuuraani mu nekk boromi leer mu am leeru xam-xam am leeru wilaaya e, wax nañ ne maanaam da koo judduwaale ndax la tax da koo judduwaale moom eh, xamul baayam ci gannaaw baayam la juddu bi mu juddoo ay najaayam ñoo ko ngénta yar ko niñ ko war a yaree mu toll ci jàng ñu xamal ko ne yow kat ci néegu xam-xam nga génn kaddu gi dal ku dugg mu jaral ko takkaayu mi ngi nekk ndaw ne yaayam bi nga xam ne mooy mati xadi di mati caam mu jàkkaarloog yaayam ne ko damay jàngi bi mu ko waxee loola yaay ja ne ko ñëweeti ko ne ko a ah, boo demee na nga góorgóorlu da nga dégg sa yaay mi ngi daan doolem di def ci boppam waaye doo dégg na sa yaay ngi taxawaalu doom yan na yàlla may la ndam mu dem di wuti xam-xam yàlla dogal fi mu jógee di dem mu dugg Saalum mu dajeeg benn magam buñ doon wax Tafsir Paate ma nga jàngi woon ba ñëw mu dajeeg Tafsir Moustapha eh, ci côté Touba ñu noyoo ma ne ko rakk sama foo jëm ma ne ko damay wuti xam-xam Tafsir Paate ne ko man de bu ma nekkoon ndaw ne yow kon góor gañey wax El Hadj Abdoulaye Niass falaay jëm laata Tafsir Moustapha di dem e, fii la ko Sidi ama Tidiane feeñoo fu mu tëddoon mi ngi nekk ndaw ne ko dali ko jàmbaaraam bi ci biir bi ne ko jógal wuti xam-xam danga nga nekk koo xam ne kay tëbbu doom aadama yi nga ëllëg ngir jariñ leen xam nga loolu moo jiitu moo jiitu ndigalal ziyaara loolu Sidi ama tijaan moo ko wax sa takunu aliman jógal wuti xam-xam ndax yow borom xam-xam nga kuy xettali doomu aadama yi nga mu jog bi mu dajeeg magam ba Tafsir Paate kooku ne ko man de bu ma nekko ndaw comme yow di wuti xam-xam ci Alaaji Abdoulaye Niass laay dem booba nag fekk yàlla yëgal na ne maam Alaaji Abdoulaye Niass dana am gan gan goo xam ne ndaw lay doon te ku farlu lay doon te ku am cër ci ñeseen lay doon waaye ñeseen it ku ñuy tiitaroo la yàlla ngi ci na ma mu doon Tafsir Moustapha Tafsir Moustapha ñëw ci daara ji bi mu ñëwé ci daara ji mam allah ji talibi yi ki ma leen waxoon ngi ni ki moy mustafa foot ñaari at la am ci suuf ronu mam allah jabdallah Niass ñetti ati alquran la jang mu am ñent ati Sharia mam allah jabdallah da ko ja dafa dem ak mom ba ba ci xam-xam ne ko fi la mën ak yow suñ mam Hawa Gueye ki nga xamé soxnaam la na tafsir mustafa nee na ko téré bu ñu wax wul de fala mam allah jihem ak yow tafsir Mustafa nak doon xel di nacc mu doon alimu kullu fannin ca la commencé def ay taalifam mu doon borom xam-xam di tëgg sëriñam Alaaji Abdoulaye Niass mu nekk fak mam Khalifa nekk faak maam Ibrahima Niass ñu di ko wax Baye Niass Cheikhul Islam moo tax danaay wax ne gars yi bu ñuy jéem a jàpp date de naissance bi rek dañuy daanu siyaare bi mboolem siyaare yi Fuuta siyaara Tayba mooy bii nekk première siyaara Tafsir Moustapha gannaaw siyaara kalifa Niass moom mooy deuxième ziyaara du ñu wax ci Sénégal waaye ci Fuuta bu Tafsir Moustapha mooy première ziyaara bay am mat caam nee na ma ñoom dañoo juddu xammee rek fekk sëriñ bi mi ngi def ziyaara première ziyaaram ci kër gi la ko daan def ray ganaar ak laaxu buna moom la daan togg ku ñëw ma ne tey la sama siyaare bi kon siyaare bi buñ koy ma ay juróom ñaar fukki at la ñuy jàpp yu teg tuuti waaye siyaare bi moo moo njëkk ci mboolem siyaare yi te muy ziara original lii tax mu nekk ziara original borom moo ko commencé boppam ci dundam te ba muy commencé ziara bi suñu maam Tafsir Balla mi ngi dund bi ñuy may Tafsir Moustapha ndigal pour na def ziara pour jëriñ jaami yàlla yi booba Tafsir Balla mi ngi dund ndax dañ ne maam Amad Seck ak maam Cheikh Oumar teewee nañ ba kalifa Niass di jox Tafsir Moustapha ndigal waaye ca ban aas lañ toll woon. boobu ay tuut tànk lañ nekk ay ndongo daara ànd ak suñu maam Tafsir Moustapha yaa ngi dégg mu am ndigal la ñëw ci Fuuta woote jaami yàlla yi di ko wësi ziyaara bi nag xam nga ziyaara day am la ko waral góori yàlla yi ziyaara tey boo koy natt mooy ziyaara kalifa El Hadj Mouhamad Niass ziyaara Serigne Touba ñu di ko wax màggal màggal ziyaara la ziyaaratul ikhwaan tasitu fi diini ziyaara day indi xoli jullit ñi maanaam di bëggante day tax ñu nammante woon maanaam gisee day tax ñu sere woon jege day tax maanaam day indi daal solidarité mu ànd ak jaamu yàlla goo xam ne eh, yonent bi salaay sallam ñu tibbee ku ci waxi Cheikh Umarul Fuuti ne na wa luqmatun wahidun fi jaw fi jaahi afdalu min binaayi alfu jaami yonent bi ne na nekk kaare siré di joxe ñam ci borom ci nitu aljanna la bokk moo waral bernde yi ñuy rey nag yi di togg togg yi di jox jaami yàlla yi di nuyoo di def affaire yi lii mooy ziara ziara bi nag yàlla dogal mboolem ku ñëw fii Tafsir Moustapha newoon na sama bés bi waxul sama bés bi bés bu jotee képp koo xam ne duggee nga dëkk bi ngir aajo yàlla dina faj sa aajo gis nga tey ba buntu dëkk bi ñaari séngala woon genn gi des na genn gi daanu na mooy gi nekkoon ci penku xabru bi Eh, banqaas yi dañoo dem ba laalante tafsir Moustapha ne fu waaye jógee ci dëkk bu mënta doon boo ronoo ñaari garab yii sa aajo faju na te yàlla may na ko borom xam-xam la mboolem fànni xam-xam yëpp tafsir Moustapha làq na ko tafsir Moustapha borom kasfu la dafay gis lu ñëwagul tafsir Moustapha borom Bachira la maanaam bu jàkkaarloog doomu aadama day mel ni kaasu ndox weer bu ñu def ndox boo jàkkaarloo kaas bi leneen la ci ñuul la dul ndox rek da koy xàmmee Tafsir Moustapha nii la daan gindee jaami yàlla yi di leen di teg ci siraatal mustaqima mu doon koo xam ne nag ku soofil boppam la ndax Tafsir Moustapha képp ku mu topp ci fuuta rek yar ak teggin ak ndigalal alhajji Abdul Ilahi Ñas moo tax waaye fii la toog ci Tayba toog ñaar fukki fan ak juróom lekkul naanul di tëgg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di tëgg sëriñam Sidi Ahmad Tidiane di tëgg alhaji Abdul Ilahi Niass te moom yàlla da koo dimbale waxtaanam ñeenti yëf la woon yàlla ne na yonente yàlla Muhammad ne na Sidi Ahmad Tidiane ne na alhaji Abdul Ilahi ne ne na leneen loo leneen loo cay jéem a dugal rek mu ne fatiha salatul fatiha yàlla dogal nag mu jaaranteeg waa fuuta fu bëree bëri mu dindi fi ay bidaa yu bëree bëri dindi fi maanaam ak lëndëm gu bëree bëri dugal fi leeru xam-xam ak leeru lislam moo tax nee na xam nga ñu bëri tey sëy yi da ngay dégg nit ki fase pasem raji a sëriñ bi ne na nañ ko takkaat ñu ne waaye sëriñ ngay faylu ji rek tafsir Moustapha ne l'islam bi bu fekkonte ne ab jaag la dugub man keel yi laa leen tànnal mooy dugub ju rafet ji nga xam ne mooy gën a baax ciw jihu nee na bu boobaa lii laa leen tànnal dafa dégg sharia te ñiy jàng alquran xam nañ ne ma ngi ci sharia bay jub lu mu def rek shari alquran la sunna la mu daal di toog fii ci Taïba nag ba del si fa gëddënam ne bu nekkoon mbëree man tafsir Moustapha daan naa bu doon course raw naa kii mooy tafsir Moustapha yàlla dogal muy def siyaare bi ba jógee fii taawam ba ku baax ka alhaji Abdoulaye Thiam bi alhaji Moustapha taxawee siyaare bi lay dem ci juróom benni at mooy te mu wëy ji boromam xam nga tafsir Moustapha dund na juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñaar fanweeri at ak juróom musul tarde jumaa ji musul tarde waxtu ci toolu l'islam rek la nekk di bay e, yàlla dimbale ko it mu mu respecté la ko sëriñam dénku woon muy muy suñu maam tafsir Balla waaw xam nga toujours danaay wax ne ma ne kii borom xam-xam la waliyu la kii borom ak may la te réew mi nekk di boromi xam-xam maam Alaaji maam Khalifa ne ko boo demee sama taalibe Baye ma nga fa xam nga diggante Tafsir Balla ak Tafsir Moustapha du nekk diggante nit ak ak sëriñam diggante nit ak nawlem la Tafsir Moustapha nawleb Tafsir Balla la Tafsiru Balla nawleb Tafsir Moustapha la lee tax xalifatu alhajji Mouhamad boole leen ne Fuuta réew réew la moo xam ne ay kàngama fa ne kii borom ak may la mag la waaye yow kangam nga borom xam-xam nga leeteer ba mang ci def yaw tafsir balla bepp masala buñ la indil wan ko tafsir mustafa lepp lu mu leen ci wax rek rongatu gaynde la du deñ lepp lu mu bind rongatu gaynde la damay wax ne tafsir Moustapha défenseuru tafsir balla la bu fekkoon football la téré buñu buñu classer manam équipe bi joueur yi tafsir mustafa moy moy moy défense bi kon nit ñi dañoo wara xam ta xamé yaa ngi dégg Tafsir Moustapha xam nga nekkal tànkam fu ko woo ci jataayu lislaam yi yow Tafsir Moustapha demal nekkal loxom lañ ko jox mu jëm ci atteb sharia Tafsir Moustapha nangul lañ ko laaj nekkal làmmiñam lañ ko laaj tontul nekkali noppam déglul la noon yay wax ci moom nga mën a nekk défenseur moo tax bi waaj a dikkee boy naa ji ne Tafsir Balla Juma war na koo eh, boy naa ji Eh, mbir mi di di di dox di dox di dox ba ñëw Taïba Tafsir Moustapha dem ba Mago Tafsir Balla mi ngi yónni doomam Cheikh Oumar Cheikh ci forage Mago bi fi mu taxaw tey la dajeeg Tafsir Moustapha Tafsir Moustapha ñëw ne Tafsir Balla lii xew moo xew Tafsir Tafsir Balla ne ko yëg naa ne yaa ngi ñëw di ma ne waa ji nag nañ koy defal ne na nabaa ji lay hendu ko am tontu na nga ñëw Tafsir Moustapha ne maa koy tontu ji. ñu ne ko déet tafsir Moustapha waa ji borom xam-xam la de ma ne d' accord naaru góor lu mu gaaw gaaw gaaw dana ma sa fakkastalu lu mu mën a daw daw daw dana masa sa fakkastalu keroog la dem na baa ji fekk fa góoru yàlla gi ne ko yaa ne tafsir Balla Juma war na ko boy naa ji ma ne ko waaw ma ne ko foo ko teg waa ji di nakk nakki tafsir Moustapha mi ngi yoroon téere bi aha digal nañ ci suñ bàyyi suñ bàyyi ñun <laughs> sax suñ saa bi bi muy dem boo xoolee nday nday jorom wallahi wallahi lool moo am wallahi bi mu waree naaru góor yu ba gaa yi dali ko siq mi ngi téere bi jëm na baaji bu ne nii nday jooram sëriñam Sidi Ahmad Tidiane lay gis bu ne ñam càmmooñam sëriñam Alhaji Abdoul Ilahi ñas lay ges booba la am yaqin ne gañe na waaja mu yegg nag dippi téere bi ne ko foo ko teg waaji di nak na kii tafsir Moustapha jot téere bi da koo dëpp dippi waar rek dajeg yax bi waa ji ne yafaluha xayrul abidil jaani tafsir Moustapha ne ko ba nga laam gi lam yafaluha waa ji dali ko jox la ko na ko caam demba lii mooy mooy moo lay wan ne kon tafsir Balla dénkaane tafsir Moustapha la e, wegeel gi ak mageel gi ku topp ci nit lu mu waddal yaa koy for keroog ba tafsir Balla génnee aduna keroog la tafsir Moustapha maanaam jot libération ndax la ko sëriñam Alaaji Abdoulaye santoon wàccoon nag moom muy béy waar wi nag di doxal l'islam bi ba ni way jee borom nee naa la taawam alhaji Moustapha toog na juróom benni at di ko doxal alhaji maam góor toog doxal ko fukki at ak ñaar mu way ji boromam tafsir alhaji Habib dalli maanaam toog mu itam fukki at ak ñaar way ji boromam bay Amat Caam jot ci toog fukki at ak juróom ñaar Baye Amat moom la yàlla may sens mu gën cee yàgg Eh, caat ma nag di tafsir alsaan nee naa xilaaf ak Baye Amar la mottali ndax juróom-ñaari weer ci weeri wolof ak ñetti fan la toog première gàmmo la Baye Amar génn àdduna dimanche ci guddi weeru koor ñaar fukki fan ak juróom yoor yoorub aljuma la bay alsaan génn àdduna kon mbir maa ngoog waaye nag tafsir Moustapha du ñuy toog ci xilaafa gi la judde eh, bay jibi jibrilu caam ma nga fa doon magu bay maam góor eh, dafa gàttu fan kooku it maanaam ci góor yi yàlla yi la bokkoon bor mi kas fu lañ bay Ibrahima Caam ma nga fa kooku it doon koo xam ne gànnaar rek caalu mag amul fépp foo xamante ne béyu fa wi ngir yatal toolu lislaam bi nit ñi ñëw xalifatul alhaji Muhammad di suñu baay mooy tamit yàlla dénk ko maanaam jolof ak li ko wër ñii ñëpp fu ci waay jógee rek nag ñuy bay ci toolu lislaam bi Eh, ànd ak maam Ibra Diaw àndoon ak tafsir Moustapha ñu di ko ànd ak njaboot ak tafsir Ibra Diaw di ñoom eh, bay Mama Diaw eh, bay Habdi Diaw bay bay Moustapha jaw bay Essa jaw tey moo fi caat tey boo xoolee këtu kët bi booy xool maanaam ci côté meen ak mbokk deret tafsir Moustapha Diaw la fi yàlla def mag xilaafa gi yàlla dénk ko Mouhamadul Moustapha di première maanaam sët ci xilaafa gi ñu di ko ñaanal bu baax nag ndax ñaanal ko mooy ñaanal suñu bopp yal na yàlla yokk fanam yàlla woyafal yen bi e, yàlla may ko ndam la yàlla mayoon ay baayam ak i ak i maamam ci xilaafa gi yàlla defal ko ko kon ñu yem fii jox xalifatul alhaji Mouhamad mooy tamit suñu rakk la e, te xam naa ne lépp luñ fi wax rek mën naa wax lu mel noona ñu yem ak yéen fii ba beneen yoon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.